waa mais rien à signaler mm, li ngeen di wane nay na tey nag euh, ñu gis ni da nga fi amee ñaari tànk mu ci côté Aïda Samb ak si côté jëkkër ji donc lan nga ñu mën wax ci ñaari côté waaw mais de de de un sant yàlla quoi euh, parce que nag nit day sabab sabab lu yàlla yeggali am baat bu ma ci sëy ma koy wax ni sëyeegul ak ñi sëy gis nga bés bi bés bu sacré la bés bi rek la may doom pour mu yónni waajuram papa jógal ma yónni la loolu ndax mës nañ koo gis ci sëy rek lañ koy gis papa jóg leen ma yónni leen say waajur jóg doxali la sa yónnante yàkkamtee wëlbatiku ne la li ñu yónni woon dox nañ ko lii lañ ñu tontu ak lii lañ fa jëlee moo tax du lu nit war a fowe sëy parce que boo xalaatee tàkkusaan bi ñëpp mag ñeeg ñëpp bàyyi seen soxla pour yow rek sa soxla moo tax sëy lu nu war di téye la euh, ba yàlla def li nga xam ne mënta ñàkk ay da ñu koy félicité mënoon naa ko maye comme mën naa ñaan si et mu nekk na xale bu baax moom laa ko wax sànq ma ne ko gisuma say waajur fa ñu tëdd mais tàlli nañu ak sa maam Samba Jabare Aïda nag xale bu baax la bu yaru bu ànd ak dal bu demul dikkul. lan ngay wax si ñi nga naan ci ñii di wax ni Euh, papam ak yaam bi ñu génnee àdduna yàggul rek mu marié ñu bëri dañ doon wax lu tax xaaru ba ci kanam. non non la ñooñ di wax xamuñu dara ci li ñuy wax moom bés bi tey yàlla noon la ko dogalee woon il faut ay waajuram dëddu muy doog a sëy lu yàlla tudd la waruñu def lu dul ñaanal ko rek. gis nga nag réew mi léeg-léeg dañuy wax rek te li ñuy wax maîtriser wuñ ko xamuñu ci dara nan ko ñaanal rek te ñaanal ko mu jig ko diw takk nan ko ah yàlla na ko jig deex na daa seet diw am na lii assez ah, normal waaw diw day ah defal nan ko lii ci teraanga c'est normal yàlla tudd na ko c'est normal rek gi nga yow li ngay ñaanal sa bopp boo ko ñaanalee ñëpp àdduna normal li nga yéene sa bopp yéene ko ñëpp est-ce que yéen a nga sa bopp torox waaw lu tax nga koy yéene keneen gis nga nag boo ko defee yow da ngay torox yàlla du la jàppale yàlla nee na booy ñaan sax maasaaleel ñaan gi boole ci ñëpp pour man yàlla ma nangul la ñaan gi nan ko ko ñaanal mu jik ko ki ko jël soxna tamit nekk nit bu baax Abbas Diagne mooy jëkkëram nit bu bari yërmande nit bu mën a téye jigéen yaa ngi dégg nit bu mën a téye jigéen nit bu baax bu am maanaa euh, am yërmande mandeyit nag ah am na ay soxna moom la ay da ma ni ko euh, sa mag yooyu muy aawam ak ñaareel def leen référence def leen royukaay def leen say mag toppal seen ginnaaw Euh, te déglu sa jëkkër na nay sa baay nay sa xarit daa sit na leen jig ah waaw. tonton Mbaye Gueye da nga nekk porteur de voix te mënuñu ñëw fi dëgg a waxu Aïda Samba moo ñu indi mais mënuñu bañ a wax actualité ñu gis tey série yu bëri dañ leen arrêté. non tey nanu wax am ah, may ma ma ñëw tey nanu wax rek ci mariage Aïda Samba bi. waaw loolu beneen yoon. Hmm. ma jox leen beneen interview ñu waxtaan ñu lan ngay dénk xale mooy nanu def ni mu war a jaaree yoon daasit sit mais tey Aïda Samb rek la ñuy waxtaan waaw yaa ngi dégg mais nag waxuma ngeen titre nanu def na mu war a jaar yoon déedéet ba Sénégal ba seen bës waaw kon nag waaw na bës bi rafet na jaar yoon kontaan nañ ci